bi mu déposé caution mam ci caisse de dépôt ak consignation teg ci yóbbu ay dossier mam ca conseil constitutionnel Serigne Mboup di waajal la jongante falum jiitum réew bu atum 2024 total li ngi collecté ci biñ commencé ak léegi 85000 la ñu collecté yóbbu nañ 58000 975 mais notre objectif te après fexe ba wax ak wax ak million millions 500 mille électeurs yoo xam ne dañ wax ak ñoom identifier leen ba nga xam ne ni jour vote jarul nga leen di jox paas jarul nga leen jox dara danañ dem voté. bi ñuy fal député yi ñu nee na loon candidature am ndax ñàkk matal li mu parrainage njiital ànd nawle ne jël na matuwaay yu ci war. législatif d' accord nañ dañoo juumoon ñun tooguñu fii rek di coow naan woy gars yi dañoo éliminé déedéet dañoo jël document bi dem laajaat ñu jox ñu benn par benn ñu xool ko étudier ko ne ah attention tolérance zéro lañ ñu defal mais ñoo juum mais bii moom wax dëgg yàlla yaakaar nañ ne. su ci yàlla àndee dana jàll incha allah. ci programme bi mu tënk ci daara ji tool bi ak pénc mi mu namm amal ay coppite ci réew mi bés bu jotee ci nguur gi. teg en place benn dispositif de développement. yi nga xam ni moo jëm ci askan wi li nga xam ne ni moom la askan wi soxla ci sécurité li askan wi soxla ci développement li askan wi soxla ci jàng li askan wi soxla ci santé li askan wi soxla pour seen valeur citoyenneté conseil constitutionnel dana amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre tirage ngir xam ñañuy njëkkee saytul seeni parrainage muy état bi tax ba ñu xam kuy bokk ak kudul bokk ci jongante falum jiitum réew bu atum 2024